borom taat semmal na saaru barka baraka ma jàngal ko saaru furxaane ami internet Texcom TV ñu ngi leen nuyu di leen ziar bu baax xibaar yi gën a fës te neex loolu bésub Serigne Maam Thierno Mbuub xasida bi ñu war a amal le 25 décembre atum 2022 foofulee ca Gambie Bakko garage Serigne Maam Thierno Mbuub xasida nee na bés bi dama cee fas yéenee sant Serigne Touba Cheikhul Khadim ñu ngi fay séentu nag ay gan yu mucc ay ak ay jàngkat yu mag ku ci mel ni Serigne Abdoulla Khat Diouf ak Serigne Saliou Diouf bes bi nak Serigne Mam Thierno Mboum Khassida neena mu ngi ci and ak wa dara bu mag bi di wa dara fédération bi nek Gambie plus information nak kep ku ci bëgg am ay leral da ngay wote ci 74 735 20 wala nga wote ci 34 501 77 maam Mame na Mboup xasida bëgg Serigne Touba ba mu jeex tàkk nee na bés bi mu ngi ci woo mbokku taalibe yëpp ak mbokku jullit ci bàyyiwul kenn rawatina nag waa daara fédération bi nga xam ne moo nekk Gambie jërë ngeen jëf.